xaw ma gerte gis ko moom amuñu ko jàpp. tamit aussi maa ngi bu baax maire de la ville sécurité bi tamit aussi vraiment kontaan naa ci ñoom ak tamit sama a yi yor routière yi ak deux roues yi. aja Pa Moussa ñëw. maa ngi nuyu ñëpp ku lim rek da léegi ñu dem droit toog bi ëmb mën nañu xam naka ngay waajalee sa diggante ak bombardier ndax yow ak bombardier mii nag te ngeen am nga fu ngeen jaar. waaw ñu ngi koy préparé préparé daanaka bu bu. bu dara xewal préparé nañ combat bi maanaam ni ñu ko war a préparé lépp lu ñu ci war a def def nañ ko ci bàyyi benn détail di ci ñaan yàlla suñu borom moom mu yor ndama maa ngi koy taal yàlla na ma yàlla suñu borom may ndam incha allah rabbi. combat bi da nga ci yokk poids wala. non non yokk ma ci poids gis ngeen mooy poids yokkul moom xam naa est-ce que job ci war a job nekk nañ ci un poids de forme macha allah daal. di nuyu tamit aussi suma këcc euh, kànji ñu ngi ko Diallo maa ngi nuyu bu baax a baax a baax parce que may door xale ba toll fii la Bolo tamit aussi mi ngi fii Bolo ku sonn tamit aussi combat bi la. maa ngi nuyu waa SK yëpp. ko ci Jigo maa ngi koy nuyu aussi tamit bu baax a baax a baax. ak waa a def sport. Gambien yi tamit ma sañ fay maa ngi leen di nuyu. ah mu mel ni da boo xamante ni comme ci moom nga jëlee woon euh, roi des arènes bi te Bombardier da ne woon jeexaat ndax yow da ngay jeex wala doo jeex. non jeexaat moom mënut a ñàkk jeexaat te dinañ for waaw léegi. Eh. gars yi may lañu tuuti. Eumeu Sène ñu bëgg a xam ndax combat bi ak sa par rapport ak sa combat bi nga njëkk am ak Bombardier est-ce que ni nga entraîné woon ci combat boobu ak ni nga ko fonke woon noonu nga fonke combat bi. bii la bii la ëppee incha bii la rawee. Mhm. voilà. combat bi moom loolu moom saa nit def ko ba le 27 incha mu mel ni mu mel ni Bombardier nee na li des ni Bombardier nee na li des ci carrière am dootul dem di jëli ji benn mbër te moom xam nañ ni forum la bu arbitre koy bàyyi xel. loo wax de. dama ne. waxaat ko ma dégg waaw Bombardier. Ah. dafa mel ni nee na li des ci carrière am. Ah. dootul dem. Ah. di jëli benn mbër. te ca digg géew ba. ah day di la xaar ndax xam nga dina dem wala du dem. ne combat bi mënu ci di xaar dañuy daje lu mënut a ñàkk la day ñëw. non ci micro ngay waxee Sénégal ñoo lay seetaan adduna ñoo lay seetaan te combat boobu combat capital la bu ëmb bu Bombardier taxawee est-ce que duñ ko jël. jàmbaar le 27 ni ñu ci woo ñëpp day ci bu neex jàmbaar la yàlla ñu yàlla suturaal. mu ngi tëj ak ndaanaan dëgg yaa ngi dégg wax bi waaw yàlla nañu yàlla daal may ndam mais combat buñ fonk la jàmbaar. di nga xeex ak Bombardier. lu combat laaj rek jàmbaar kuy dem guerre lépp ngay préparé. non am dañu bëgg Sénégal yi tey li war a open press bi dañu bëgg xam tey Eumeu Sène lan war a indil Bombardier amoo danta wala Paul. kenn du dem guerre di wax armes yi ngay yóbbu. mais ay armes fatales yi ñëw incha allah. mais ñu bëri sànq dañ la jox suñu micro. mais dañ ne bu Bombardier taxawee Eumeu Sène taxaw combat bi match nul la gën a jege te amateur yi xaaruñu loolu. est-ce que ñu noonu jàmbaar la may jàmbaar loolu bu ko kenn séntu ci bi. ñëwal Mamadou Diouf nee na am na deux questions pour Eumeu waxal. waxal mu dégg la. waaw. di nuyu mbooloo bi yëpp. Euh, am naa ñaari question pour yow benn bi dañu ko jël ci Bombardier mu ne génne na su la slogan bu bees nee na ku ko dóor abal ko yet bi dóor fayu beneen bi sa ñàkk teew mbuur samedi bëggoon nañoo xam lan moo ko waral. waaw ñàkk teew bi du leen rek lu dañoo voyage yi xam nga ci diggante bi aussi temps bi xool nañ ko mais duñ mën a fekk mbuur parce que tey boo xoolee ci ñi njëkk a d'accord dem mbuur man ci laa bokk. aussi du dëgg parce que yàgg na ñëw mais ñëw bu muy ñëw Dakar tamit daje lay doon man damay jug dem ñu daje ci télé wala ñu daje feneen. kon daje la te tamit aussi xëy na noonu la ko yàlla suñu borom tuddee mais tamit aussi amul benn problème waa Mbour yëpp maa ngi leen di jéglu ci ñàkk ba a teew bi ak Sénégal yëpp. voilà te tamit Mbour dafa bëri ay supporters tey sama supporters yi demoon ma wax lu mu toll su ma ko daanee dem Mbour nuyu jaajëf Omo maa ngi lay baax a baax. waaw dañu gis ne am nga ñaari avance benn bi yow Bombardier benn bi yow ak Balla Gaye Bombardier bi mu amee ñaari avance première coup Balla Gaye la amoon dafa la indee nag ku yar bi njëkk bi lay daal te yow bii mooy sa première coup sa diggante Bombardier nga jóge ci ñaari defet lan nga ñu koy préparé jàmbaar. ñu waajal combat bi waajal bu bu yéeme. nee na bii mooy bi. yàlla am ndam yàlla yàlla may ndam. incha allah nee na mooy xupp bi ndax bii mooy ñaari ñaari combat yaa ngi ci ñaari contrat sa digganteeg Bombardier ak sa digganteeg Balla Gaye te bii mooy premier xupp bi. incha allah ci kàttanu yàlla ci Bombardier lañ nekk fu mu toll nii Balla Gaye ñëwagul am yeneen combat yu mu a bëre après ñu soog a daje. beneen bi joxewoon nga revanche sa diggante Gris Bordeaux jëloon nga revanche 6 mars 2023. revanche boobu na nga ñëwee woon bër bi carrément ci jeexaay bi ci entraînement bi tey ma gisaat état de forme boobu est-ce que na méttee woon sa diggante Gris Bordeaux nga dem ba jeex mën nañ koo xaar sa diggante ak boobu ak combat bi lépp la ñuy waajal jàmbaar. mooy lu <laughs> waaw. liggéey bi métti rek. nee na dafa gis ni da nga wàññeeku lan moo tax nga wàññi poids bi. waaw liggéey bi rek la. Bombardier boo bëggee bëri moom fa nga wàññi poids wala. non non du question wàññi poids xëy na cardio bi liñ liggéey moo bëri rek. waaw liñ liggéey ci combat bi moo waral loolu du dëgg mais nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla mi am ndam yàlla ñu yàlla may ndam jàmbaar incha allah amatir nañ kontaan. yaa ma seen news waaw. waaw. jàmbaar ñu lay fay. ku koy jël premier combat bi nga jël waa hmm. ma na ndax ku nga xamante ni bombardier joxoon na la ko. ah nee ndax yaa ngi sóoraale coup bi nga xamante ni sa premier compa bi nga jël roi des arènes ak bombardier coup boobu la bombardier jox ndax yaa koy sóoraale. non jàmbaar fu mu toll nii sóoruma loolu wax dëgg yàlla waaw ñaanuma yàlla xam nga di di jël kaay kii yi demee noonu mais amuñu leen daal lu ñuy ragal ci combat bi. du xeex bi du bëre bi ku ma xam-xam ni yàgg naa jur ay coup fatal téye sama ngor ak suma conscience dem liggéey yàlla may ndam kon loolu nekkul dara combat la mën na jël coup mën naa jël coup waaye moom na jël coup ci biir incha allah loolu yi ñaan. bañ a daj nee na lan ngay wax say supporter comme yow yaay dalal Bombardier fii ci arène nationale pour bu lamb ji jeexee ñu bañ di dajji ay siège di kii parce que loolu sax léegi CNG de lutte bi ak sécurité bi jël nañ ci matuwaay yu wóor bu yeboo ak supporter yi bàyyi ci xel ñu déglu monsieur Eumeu Sène ci question. non man ay supporter noobu laa am parce que samay supporter mosuñu def loolu te je que duñ def waaw. kon. la rek combat bi euh, ñu koy waajal kon ni ñu préparé yeneen combat je pense que du nekk combat bu soof ku xam ku ne xam ne Bombardier jom ji ne ci moom ku ne xam ne Eumeu Sène tamit fulla ji ne ci moom kon nu mu waxee bu ko bëree lamb ji moom incha allah dina doon lamb ji gaaw incha allah. léegi léegi dernière question gars yi waaw waaw. Eh, booy ñoom ñu nee nañ kan moo kan moo laaj loolu. Bamba Bamba Major TV nee na présidence su Boy day wane ni amul benn ñagas ñagas bu am seen jàmbaar ñii sumay rakk lañ maa seen mag du dëgg kon euh, doxaayu mag rek laay doxee du dëgg kilifa laa jëfi kilifa laay doxee sumay rakk lañ du dégg amul benn problème jullit laa jéggal naa ñëpp baal naa ñëpp may rakk lañ su ñu amee bis dinaa ci teew dinaa def ko nu ma dem def parce que àdduna amul solo àdduna dafa gàtt du dégg jaajëf maa ngi nuyu nag léegi ñu bàyyi la nga nga woote. maa ngi nuyu nag waa Pikine yëpp ak mbëru Pikine yëpp di ñaanal euh, Ama combat bi muy dugg yàlla may ko ci mu jël roi bi mu gagné. booy ñaa combat bi nekk ci kanam tamit si maa ngi koy ñaan yàlla may ko ndam. sokk tamit aussi maa ngi ñaanal yàlla suñu borom may ko ak mbëru Pikine yëpp Ziza ñëpp maa ngi seen ginnaaw. man drapeau Pikine moo ma ñor. te maa ngi seen ginnaaw incha allah su ma jigee ci nag. maa ngi euh, santaat sëriñ bu baax a baax maa ngi sant sëriñ yëpp. bayt rasul bi yëpp. nguma géew tam aussi maa nuyu di nuyu waa AS Pikine jóge fa tam aussi di nuyu waa Casamance bu baax.